internet yi dalee nag jàmm Ahmed Aidara mi ngi ci guddi gu bës setagul ginnaaw bi nga xamee ni euh, nag waa parti socialiste ci boppam euh, ñoo bëgg daal di nag euh, ñoom ñi traduire ko en justice maanaam dañu ko bëgg a yóbbu ca yoon ne nag da leen daal di diffamer moom Ahmed Aidara député yu parti socialiste ne dinañu daal di jëflanteeg moom ci wàllum yoon ndax dafa doon déclaré démb ci benn réunion conférence des leaders bu yewi askan wi ne nag daanaka Euh, présidence bu assemblée nationale moom mu ngi mel ni samay loxo la nekk ndax am na ci certitude au moins quatre députés yu benn bokk yaakaar ñu voter pour man il s'agit également ay députés yu par membre du parti socialiste yi nga xam ne discuter naa ak ñoom et que itamit daal nañu nag waat ne dinañu dinañu ma voter euh, daanaka jot naa seen ferme promesse loolee nag le euh, maire bu waay dal di waxoon ca réunion bu conférence des leaders bu Yewwi Askan askan wi ngir justifier ca kanamu nag euh, euh, euh, assistance ba li nga xamante ni moom mooy fondement candidature am ca présidence bu assemblée nationale réplique député yu parti socialiste yàggaluñu ko benn yoon ñoom ne nag ñu ne il est évident que déclaration bu ay dara daanaka lépp ay fen moo ko daal di nag laal dara amu ci ndax lépp dañu ko monter ngir daal di joxe crédibilité ci candidature am moom nag nekk ab manipulateur bu ñëpp ràññi euh, moo tax nag mu daal di euh, def li nga xam ne moom mooy sensation ci wàllum buzz euh, lépp li nga xamante ni nag moom mooy daal di constitué constitué li nga xamante ni mooy jëfam saay su nekk moo tax nag au regard de son statut politique ñoom cinq députés yu parti socialiste bokkit ca coalition benn bokk yaakaar xaadi nag jànna réagir nañ ci nag propos yu Ahmed Aïdara yooyu le di maire bu ville bu Guédiawaye Cheikh Seck porte-parole des élus euh, socialistes démentir loolee ne nag élus yu parti socialiste bi muy wax euh, du kenn nag euh, koo xamante ni Euh, que ñi nga xam ñoom ñoo nekk nag autour de cette table ñun ñi nga xam ñoo wër table bi ndax euh, de façon catégorique de façon ferme yooyu les propos dañu ne nag amul daanaka teguwul ci dara loo xam ne dëgg la et c'est diffamatoire c'est bien dommage ndax ab homme politique mi nga xamante ni dafa daal di di prétendre incarne ay hautes valeurs morale di illustrer wu de manière manière aussi légère jaarale ko ci ay pratiques malsaines ay jëf yoo xamante ni rafetul dara lépp rek ngir daal di ci li nga xamante ni moom mooy nag ay la mu bëgg démocratie sénégalaise bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Seck mérité wul lii peuple Sénégal itam mérité na mieux euh, ci nag euh, ab représentant euh, bu nag du peuple ñi nga xam dañ jàpp ne nag li nga xamante ni mooy arène politique bi ab scène de théâtre la ba ku ci nekk nala la neexee nga ko war a daal di nag defee élu yu parti socialiste yi nga xam ne moom la ñu doon nee ñu nag dañu daal di tënku ci suñuy valeur